waaw ñun ñu ngi koy waajal rek ñu ngi ci yére mag ñi xam nga ñun mag lañu. en euh, mag ñi daal lañ faral di ñëwal ak kilifa yi. waaw ñu ngi ci bu baax sax. waaw daanaka daal ñu ngi li ci des bëriwul daal yaakaar na dina àgg daal. bi de mooy loo xam nga rek dina xaw a góorgóor noonu liggéey ndànk-ndànk nii rek dina xaw a na xaw a tamit na xaw a métti daal mais kii daal yaa ngi gën yi moom li ñuy wax fii rek ndaw ñi daal ñoo ci gën a am jafe-jafe mag ñi. parce que mag ñi ñoom li ñuy dugg dañ koy xam su dee gone yi nag ah, dañuy topp xaalis bi ak kii bi rek su ko defee bu ñu ëllëgee nag ñu am problème waaye ñun fi ñuy ñawloo moom wax dëgg yàlla amuñu ci benn jafe-jafe yu jafe ko. Ah, jafe-jafe yi de moom mooy mooy tailleur yi moom da ci am ñoo xam dañuy dugg luñ mënul rek te ku dugg ci loo mënut it gis ko rek waaye fii may ñawloo fii ma toog nii. saa su ma ko joxeem ñaw moom ma gis fi ñeneen tamit ñu jël seen i ñaw moom mosuma dikk gis kuy coow ak moom. boo fanaanee boo boo bëggee xëy liggéey day métti quoi. waaw moom taam noonu liggéey ba ay yooyu noonu yaa am gën a xam. Ah, xam nga rek liggéeykat moom fokk day am noo xam ne moom boo leen ñu mer mais foog nga baare leen. Mm. wala bu nee ba ci fi ni fin ba ñoom ñoo lay ñooy ñooy dëgg ci yow. Mm. instant yi nag boo leen baaree yow yaa am dëgg ci yow. pour le moment man moom baare naa mais su demee ba ci kanam wàññi ko ba sa xel daal gaa jëlaat daal yokku tuut noonu. instant yi am na ñun baare nag. moom yenn liggéeyu jigéen yu jafe daal baare nañ ko xaftaay yeeg caay daal ba léegi ñu ngi ndaw yi daal li ñuy ñu gën a góorgóorlu te di wàññi seen kii waaw li ñuy jël daal waaw soo waree jël fukk juróom daal nga jël fukk yi bàyyi juróom yi parce que xaalis neex na trop mais nag ci cëppaandaw la ngay am problème bi waaw li ma la wax rek ñoom dañuy respecté rendez-vous rek ndax bis boo boo waree mën a ñëw fukki ñëw nga bëgg caa jël fukki ñëw ak nangam du mën a sotti da xool bis li li nga war a ñëw ci bis bi nga nga calcule bis yi ni mu toll quoi nga engagé ko bu ko dee doom benn problème. tailleur yi ndaw yi moom bëgg nañ xaalis bëgg bëgg nañ ay pro moom ay problème la ñuy dugg toujours moom loolu moom leer na ma kenn ku ci nekk respecté la nga la nga nekk ndax maanam xaalis neex na lool nag waaye nag respecté nit ki tamit dafay baax. waaw lépp loo xam ne mënoo koo ñaw ci ci kore gi ci tabaski gi nga ne ko mënuma ko ñaw baare naa bu ko defee mu dem seeti keneen wala boog mu dem jënd ci ñaw ba nopp bañ a tardeel ay xaleem waaw noon daal laa gisee affaire bi moom. non client yi moom mooy loolu noonu boo jëlee après bu mënut a àgg tamit nga bàyyi ko fi rek après ni après julli yooyu noonu. comme ñoom ñu def ni mag ñi rek sensé léeg-léeg ñëw dina andi ñëw sax bëgg a joxe avancement ne bu la neexee nga dem ba ñëw waaw xam nga noonu war a liggéey. boo xoolee xaas bi rek du sotti quoi. voilà waaw waxante li a am am solo lool baax na baax na ci ñëpp waaw. waaw yàgg na non di nga xam sax yow client yi nga ñemee taare seen ñaw ak yi nga xam ne doo taare ñaw ah, da am. <laughs> loolu la am bees yoo xam ne mooy loolu boo bëggee téye il faut nga am noo kii ak ñoom. mais ñu yàgg ñoo xam ne yaa nga xam ne dañu la mos a bàyyi daal après ñoom tamit mooy loolu ñoom bu naree kii nga taare ñaw.